هذه المقدمة العزية للجماعة الأزهرية تأليف أبي الحسن علي المالكي الشاذلي kii mooy téere bi muqaddimatul aziya waaw borom dafa njëkkoon def benn téere bu mag waa waa jamaat azhari daal di daje ne ko nag dama bëgg nga defal ñu benn muqaddima boo xamante ne day tënk lépp te mu neex a jàng loolu moo sabab ma defal téere bi tuddee ko muqaddimatul aziya bi jamaatul azhari ndax waa waa jamaat azhari ñoo ko sàkku si moom ki ko taalif nag mooy abil hasan ali nekk si ngir Malik nekk si tariqa imam Chadili mu ne bismillahi rahmaani rahim alhamdu mboolem xaaju cant ñeent lillahi aji saxla ñeel bur yàlla waaw minhu lahu minhu li gayrihi min gayrihi lahu min gayri li gayrihi min gayrihi lahu ñeent sant cant yëpp dafay delluwaat si yàlla ñu ne ko ban yàlla mu ne rabbil alamin kay borom mbindeef yi wa ashhadu maa ngi seede di gëm di dëggal ni an nak li mbir tey mbir laa ilaha amul benn buur bu nuy jaamu jaamu ga jëla jural njëriñ naka jaamu di di lore illallahu kulul yàlla waxdahu moom kot laa sharika dit benn xeeti bokkale la ko di ko ñeel wa ashhadu maa ngi seede tamit ne anna muhammad naka muhammad abduhu jaamam la wa rasuluhu te ndawam la ci te ndawam la wa rasuluhu te ndawam la moo ko yónni si mbindéef sallallahu alayhi wa sallam wa ala saail ambiya yi ak mboolem yonent yi mboolem 124 mi yonent yi yëpp yal na yal na yal na salaatu wa salaam dëkk ci seen kaw wal mursalina ak ñun yónni ñi wa ali kulli ak ñun ñëpp mboolem 124 mille yi ku nekk say ñooñ yàlla na salaatu wasalaam bi dootu ko seen kaw wa taabiina ak way topp lahum ñel leen bi ihsaan ci rafetal ilaa yawmi diin ba bis penc ma baad ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi fa yaqul wax na al abdu jàmba al faqiir ka aji aajowoo ilallaahi jëm si yàlla taala yàlla mi aji kawe kooku may kan abul xasan baay xasan aliyu may ali al maliki kay ko ju malik ci giir Chadili kay ko ji Chadili ci tariq gafara allahu lahu yal na ko yàlla jéggal waaye waalidayhi ak ñaari waajuram wa mashaayixihi ak sëriñam wa ixwaanihi ak mbokkam wa saa'ir ahli sunnati almuhammadiya ak mboolem ñu sunna almuhammadiya ko ko ju Muhammad képp koo xamante ne yaa ngi teg sa tànk si sunna yonent bi rek yal na yal na la yàlla jéggal mu ne haadi lii nag muqaddimatun ak muqaddima la ab introduction la fi masailin si ay masala min al ibadaati laa la moom ci jaamu yàlla yi la wa gayri dalik ak dul jaamu yàlla yi waaw jaamu yàlla yi ak teggin yi yi nga xamante du jaamu yàlla waaye ay teggin la loolu moom lay def ci muqaddimaam bi mu def ko wa gayri dalik mu ne mu def ko nag ala kay doomu anas rahimallahu taala mënal dafa def intifaa ngir na jëriñu bi haa ci téere bi alwildaanu xale yi xale yi daf ko def pour xale yi ñi nga xamante ne jànguñu xale yi jëriñu si wa naxwuhum ak ñu mel na xale yi comme mag ñi jàngul inchaa allahu taala nem sam na yàlla mu koy mi mu ne laxastuha maa ngi ko tënkee nag min kitaab yi bàyyi ko sama téere bi al musamma ba di buñ tuddee salik mooy téere bi njëkkoon defar tuddee ko umdatu salik moom la résumé waat def ko muy muqaddimatul aziz mu def ko nag ala mazhabil imam malik si ngir imam malik mu def ko fil ibadat si jàmm yàlla yi wa gayri dalik ak dul jàmm yàlla yi wa samaytuha mu tuddee ko muy muqaddimatul aziya lil jamaatil azhariya mustamilatan bi mu aji làmboo moom téere bi ala ahada achar baawal ci fukki bunt ak benn الله العظيم ربنا خلف ورجع ولا سكر باب الأول في الطهارة لما بنت بنك في الطهارة اللاب أتي لاب قال الله تعالى وريا لوخنا شاء الخلاني وأنزلنا من السماء ماء طهورا waajal naa wàcce nañu ñun yàlla mi ne sama bay ko si asamaan si maa am ndox taxawoon gu laab almaa u ndox ak taxaru gu laab moom lay def niiral dañ may naaw taxawul l'eau potable mu ne maa mooy ndox bi nga xamante ne kaane nekk na taahiran di aji laab fii nafsi si jëmi boppam mu taahiran di aji laab la leen di ci ñeel leneen mooy ndox moo xamante ne laab na si jëmi boppam ah ba fay di laabal leneen loolu mooy maa ut taxawul ñu naan ko maa ul mutlaq mooy ndox mu ñu jaayal kamaa il bax yi ni ko ndoxu géej wal bi is ak ndoxu teen wal matari ak ndoxu taw ida lam yataxayar dem soppeekuwul shay'un dara min awsaaf yi si melokaanam yi salaas yadi ñett fekkee ñetti melokaanam yi benn soppeeku si ndox moom mu tudd ndox ma laab tey laabale ñu ne ko yan mooy melokaanam mu ne wisi wa allaw ni mooy melo ga wa taamu ak tafka ga wala riix ak xet ga ñett yi benn bis soppeeku rek ndox mi laabatul bi maa ci loo xamante ne yan fakku dafay xobbeeku an wu si moom xaaliban si lu nëb loo xamante ne moom ndox mi leen def waaye ñu jaxase leen kàlla ba ni ni ki soow ni yaa ko fekk wala asali ak lem wal bawli ak saw wala azilati ak dem joor waaw waaw mu ne fa in taxayara ni mu soppi na ndox mi ndox mi nag ñaari façon soppiku yi la mën a soppiku benn li ko soppi laab mooy li ko sopp bañ a laab mu lay wax nag bu nekk lan mooy atem mu ne fa in taxayara neem soppi na ndox mi neem soppeeku na moom ndox mi shay'un dara min awsaafi yi si melokaanam ak salaasa yëri ñett bi ma si nga xamante ne zukki la tuddeef na ko yi ñu la tuddal te mooy laban ak asal ak bawlu azira ah fekkee yi ñu tudd benn moo soppi ndox mi wala yi ak ndoog yooyu wala yi nga xam ne sax tudd duñ ko laay sax di wér al wudu u njàpp min si moom wala xusu du jaageen cangu cangaay wala istinjaa du jaageen tàncu ndox moom mu ne si sangu mu ne si si jàpp mu ne si tàncu wala mu taxayyuru ndox mi soppeeku nag bi taahiri ci laab taahirun aji laab ndox moo xamante ne laaba ko soppi comme ndox moo xamante ne da nga ko jël ndox mu jaxase ak sow waaw ndox mu jaxase lem ndox moom laab na waaye xëy taxawin du aji laabal leneen mënul laabal leneen moom si jëm boom laab na yu saamu des koy jëfandikoo fi la aadaat si aada yi rek waaye wala yu saamu yu def ko jëfandikoo fi ibaadaat si jaam yàlla yi ndax moom dañ koy jëfandikoo si aada yi waaye kenn ko jëfandikoo si si jaam yàlla yi waaw wala mu tax ay ndox mu soppeeku nag bi najis si sabe najisun sabe la ndox boo xamante ne lu sabee ko sopp ndox moom sabe la laay saamu def def ko jëfandikoo def ko jëfandikoo fi cheyin si dara min al aadaat si aada yi wala fi cheyin ci ci bu jaageen si dara min al ibaadaat si jàmm yàlla ndox moo xamante ne lu sabee ko soppi ah ndox moomu sabe la kenn mënu ko jëfandikoo si aada yi kenn mënu ko jëfandikoo si jàmm yàlla wa ida taxayara nem soppiku na moom ndox bi maa si loo xamante huwa moom min qaadihi bàyyi koo na si sax waayam loo xamante ne moom ndox mi ñoo sax ñoo dëkk ka turaabi ni ko suuf bi fekkee suuf ma soppi ndox mi wala milxi wala xorom wala nuura wala nuura ah aw wala loo xam aw bi ma wala loo xamante ne te wala da juddoo na minu si ndox mi wala loo xamante ne dafa judd si biir ndox mi kat toxeeb ndiki mbaalaamaal mbaalaamaal mooy vert yi nekk si ndox ndox fi mu yàgg nekk day am vert yooyu fekkee ne lu vert yi affaire yi vert yooyu moo ko sax ndox moom laab am tuuri mu si wala yàggu sax wala fi mu nekk yàgg gi mu fa yàgg teen gi mu nekk yàgg gi mu fa yàgg moo tax mu soppee ko ndox moom laab na fii ne nekk li mbite mbir bu fekkee ndox mi li ko sopp suuf la wala xorom wala lu mel ne mbaala mbaal wala yàgg gim yàgg sax fi mu nekk moo ko soppi laa yaduru du lor way saamu def ko jëfandikoo def na ko jëfandikoo fi la aadaati wala ibaadaati ida waqaa nem tabbina fi lmaa il qalil ci ndox mu néew ka aaniyati wudu comme ndabal njàpp lil mutawaddi i ñeel aji jàpp wa aaniyatil rusi ak ndabal càng càngaay lil muxtasir ñeel aji sangu fekkee ñaari ndab yooyu na jaasum da see da see tabbi muy faa'il ba ida waqaa najaasatun walam tuxayiruhu te soppiwul ndox ma innahu naka ndox ma masixu dina wér attatihu lablu bihi si ndox ma ndox ma mën nga si jàpp mën nga si sang walakin waaye nag yukku na ko si def na ko ida wujida kan lañ koy si nag ida wujida xayruhu soo amee beneen ndox nawal ma umu saman ndox mun jëfandikoo fil wudu si njàpp woowu si ak ca ak càngaay ndox moo xam ne ko jëfandikoo si njàpp ak si sangu taxul aji laab la ndox moo xam da ngaa jàppale mu des wala nga sangu pare ndox mi des ndox moom laab na waaye yu ko si siweef na ak tati xiiru laab bi si ndox maa wuju dana yi ànd ak am beneen ndox ndox moom nag desin ndox moom bu fekkee am nga benn ndox simna nga simna nga laab si wa fi mustaamali nekk na si ndox mun jëfandikoo nag fi gayrihi si leneen kal mustaamali comme ndox mi jëfandikoo fi tabarul di si seetlu seetlu mooy nga nga toog ba ba ba sa yaram xaw a tàng rek nga dem xëppoo ndox ndox moomu waxul si jam jumaa ak càngaayal ajuma xawlaani ñaar wax ndox mi nga xam ne da nga kaa jëfandikoo si seetlu wala nga jëfee ko si si nga jëf jëfandikoo ko càngaayal ajuma mu des nga xam ndox moomu jàpp nga si jàppaat duñ ko si bula si buñu ko loolu am na wuuti moo tax mu ne nekk na si xawlaani ñaar wax bil karaahati si sibel ga waa adamiha ak ñàkk sibel ga kullu xayin fa huwa taahirun aadamiyan aw gayruhu mu ne kullu xayin lépp lu lépp luy aji dund lépp lu am bakkan di dund rek fa huwa moom taahirun aji laab la aadamiyan moo xam doomu aadama la aw gayruhu wala lu dul doomu aadama moo xam xayawaan la wala lu mu mën a doon lépp loo xam ne am na bakkan di dund rek loolu lu laab la wa kadalika ni ki noonu arquhu moom si jëm boppam laab na waaye arqu liy génn si moom yëpp laab na arquhu ñaqam laab na luaabuhu loram laab na mooy ñandaxi mooy mooy tëfitam wa muxaatuhu ñandaxitam laab na wa damcuhu rangooñam laab na wa bayduhu nenam laab na xayra lulul nen bu xooj bu xooju bi zaali si zaal al muajjama ba ñu tomb bu moom soo xamul al madadi al madiri baydul madiri nen bu xooju soo ko xamul al mutagayir mooy ba aji soppiku al muntinu ba aji xasaw mooy nen bu dem ba nëpp mu ne wala badul aadami yi sow doomu aadama fii xaali xayaati yi si jamono ji muy dund taahun aji laab la doomu aadama jamono ji muy dund soowam laab na waa si dewee nag soow gi laabatul wala banu baaxil akli soow lépp lu ñu daganal ak lekkam taahun aji laab la lépp loo xamante ne lislaam dagan na ñu lekk ko soowam laab na kal baqee ni ki nag wal ganami ak gàtt wal ibili ak giléem wa kadalika ni ko noonu lépp lu lislaam dagan ñu lekk ko bawluhu soowam laab na wa rajeexuhu ak dem jooram ak i nefereem maa la ñuy taxada li fekk li fekk dundeewulu bi dañuy si si sobe li fekk nekkul dundeelu sobe comme comme ginaar yi nga xamante ne ay sobe la ñuy dundee ñoom seen dem àll sobe la donte dagal nañ sax wala bu na xëy xaaw soow lu dul yii ma la tuddal taabiun aji topp la laxmihi ñel ñel yàpp ga ñel yàpp wa fama bépp xewaan boo xamante ne xaruma araam na akul laxmi yi fama lépp loo xamante ne xaruma araam na akul laxmi yi lekk yàppam fala bu nu soowam na gisuñ sobe la lépp loo xamante ne lislaam wàcceen lislaam indi na atte na lekk yàppam dafa araam ah comme innama alxamru wal maysir wal ansab comme comme alxayloog biral wal xamira ah naar góor ak fa ak mbaam ak berkel nga xamante ne lislaam moo wàccee ne daga nuñu lekk seen yàpp ñoom fa la bunuhu seen soow na gis nu sobe la kay xale ni ki naar góor wal biral ak berkel wal xamir ak mbaam waaw lépp loo xam ne dafa araam ñu lekk yàppam soom sobe la waamaa lépp loo xam ne kuy saa si béef na nag ak walax mi ñu lekk yàppam lépp loo xamante ne lekk yàpp gi araamul waaye duñ ko sib kas sabiu ni ki ndag meent fa labanuhu soom makruhun ñu sib la soom araamul waaye sib nañ ko waaw comme ay gaynde segg till waaw lépp wa maytatuma méddug lépp loo xamante ne laa naf sa déet déet bakkan wala laa naf sa déet dërëj saailatun ba aju yor lahu la saailatun ba aju yor lahu di ko ñeel lépp loo xamante ne soo ko ree dërëj du génn ci moom kooku kaddubaab yi ni ki weñ wan nam li ak xoroona nga duudi ak sax ak wer wer lan koy wax taahiratun aji laab la ñoom laab nan weñ nga xamante ñoo am dërëj amuñu dërëj ñoom laab nan fasun maytatul aadami métug doomu aadama najisatun sobe la xeyril ambiyaay ba mu des ndesital yonent yi ba mu des ba mu des yonent yi yonent yi donc ñooy ñooy ñooy dee ñooy médi tëdd tëdd nag sobe njëlu yonent yi suñ medd doy sama lañu doon wa kadalik ni ki noonu may totuma meddug lépp loo xamante ne lëxu ñel na ko aha nafsun dara ci saa ilatun ba aji yol kal xam na ci ndiki téej al mashhuri si liñ siwee wal burgus ak fer ak matt inde ibnu nasar si fas ibnu nasar loolu sobe lépp loo xam ne dafa am dara bu yol su waaw su bu yol su su meddee sobe la waaw maa lépp loo xam ne ubbi na fàcceef na ko mel la xay tukkee ci luy dund ayil mayti wala mu tukkee ci luy dee mimma mimma ci loo xam mimma ci li nga xamante ne taxawluhu dina dagan alxayaatu dund xalqare ni ki béjjén wala azmi ak yax wala dufri ak wee wala jill ak der na gisin sabay lépp loo xamante ne da nga ko dindi si si si luy dund jamono ji muy dund nga dindi ko si moom ah loo xamante wala wala nga fekk wala nga dindee ko si lu métti loolu sabe la te mu ne te mu nekk loo xamante ne day dund si yaram doomu aadama comme béjjén béjjén day dund soo ko daggee day ñëwaat kon soo fekkee xaar nga dagg béjjén gi béjjén googu nga dagg sama sabe la ak yax ak weey sa weey fi mu toll soo ko lelee sabe la nga koy sànni wal jëlli ak der yooyu yëpp na gisin sabe la wala ba dul maytati soow lu médd ni ki noonu tamit sabe la wa mu xa lépp lu mel ni soom sabe la wa mu xaramin akli ak lu ñu araamal lekkam lépp loo xam ne araamal na lekkam ah sabe la kal xinzi ni ki mbaam xuux wala ataan ak mbaam àll waaw wa bawlu jalaala ak sow jalaala wa rajacuha ak i nefereem lii moom jalaala soo ko xamul kullu xayawaan mooy bépp ay xayawaan boo xamante ne yestaam yu dafay jëfandikoo an najaasa sabe mooy xayawaan yi jëfandikoo sabe ñoom lañuy wax jalaala mooy xayawaan yi wër si mbedd bi lekk sobe yi comme xal yi wër si nga xamante ne ñu rek lañuy lekk mu ne wal bawlu saw wala adiratu ak dem àll min aadama yi bàyyi ko ci doomu aadama ñu ki noonu sobe la waaw saw yi bàyyi ko ci doomu aadama ak ak yeneen fereem sobe la xayra fatalatil am yaabam des desal yonent yi waaw dégg nga yonent yi rek ñoo ñi nga xamante ne seen destal du sobe wa min muharramil akli ak lu raamal lekkam sobe la wa makruhi ak lu ñu sib lekkam sobe la ka sobe wa njëkk nag meen wa zibi ak til la mu ne wal xayxu dët wa sariir ak dëtu wàññar dëtu wàññar mooy dëtt boo xam ne dafa jaax dërëj ji ak dëtt gi dafa jaaxsoog dërëj mooy dëtu wàññar xayxu nag mooy dëtu dëtu yeex bi noonu doomu ñoom ñaar ñëpp sobe lan wa damu dërëj almaswax baa ji buusu mu naan adam yi tukki doomu aadama sobe la aw xëy wulu doomu aadama ñu ko xar soo ko reyee dina ji doo génn sobe la dina ji buus rek nga xam ne dan la jëm mu génn sobe la wal xayxu ak wacc wal xay u ak wacc al mutaxayir ba aji soppeeku an xaalati taam walis meloo ñam bi waaw ni ki noonu waccu tey bu meloo ñam bi soppi ko ah sobe wala muskil ak lépp luy mandile lépp luy mandile ak sobe la kala xam ne ni sàngara wala moom moom tamit sobe la wala woo moom men rajul fekkee ci góor la bàyyi ko moom ma nii maa un ndox lay doon ab yodun bu weex saxiin bu tal bi mu tal si ñetti tox ay li ma ci nama xalisun mooy bu tal mu ne sa dak foq dafay jëñu fii xuruj yi si génnam raayxatu xetam ka raayxati tala dafa mel ne xetu tóor tóor tàndarma bi la ayni si ayni awil xaa i wala si xaa al muhmalatani yër yu neenal soo dee nga ne talxi soo dee nga ne talxi wa qaribun aji jege la min raayxatil ajini si xetu mooñ xaw na jege xetu mooñ wa idaa wa idaa yebi sa soowee nag kaana day nekk moom moom mënuyu karaaxetit bayri comme xetu nen su yowee xetu nen lay yor mën a wa wa minal marati mënuyu si jigéen maa un ndox lay doon asar bu gel fekkee si góor ndox mi day weex waaye fekkee si jigéen la ndox mi day gel raxiiqun bu sew wala wadiyu wadiyu moom sabe la wala wadiyu wadiyu bi daalin si daal muhmala si mbari bu neenal mooy daal du am tomb du du nekkul daal daal la bu muhmala si mbari bu neenal wa fil yaa nekk na si yaagi nag wajahaani ñaari anam yaa gi wadiyu yaa gi am na ñaari anam at tashdiidu wa taxfiif soo neexee nga shadda nga naan wadiyu soo neexee nga nga nga woyee foo ko naan wadiyu dégg nga woo moom wadiyu soo ko xamul maa un ndox la abyadun bu weex saqiin bu tal yaxuju day génn xaaliban si lu not aqiwal bawli si yéex bi saw moo tax ñu bëgg soo sawee pare nga toog lu yàgg ndax moom heure boobu lay génn waaw wala madiyu madiyu bi kasir daali si kasa daal ga al mucjama bari bun tomb maa un ndox la abyadun bu weex raqiqun bu saw bu sew yaxuju day génn inda ladati bànneex bi inaam si tukkal ay jamanam si inaam qiyaami zakari mooy tax bu zakara mooy génne wandal wala amat si nas foofu jigéen ak koska wala xalaat jigéen di fàtte tey ay li ma namm ci tazkar tafakkur may xalaat jigéen moom loolu moo koy génnee wa ramaadu najisi doomu sobe ah wa du xaanu saxaar ga tamit najisi sobe la bépp doom boo xam ne sobe la saxaar gi génne ci doomu sobe la waaw aslun ma tajib dina war idaaratu najaasati dajal sobe dajal sobe an sawil musalli si yére aji julli wa badanihi ak yaramam wa makaanihi ak bërëbam kuy julli war na si moom mu dajal sobe si ñetti bërëb si yéreem si yaramam si place bi mu jullee ñu naan ko tahaaratul tahaaratul xabasi tahaaratul xabasi mooy moo moom ñett yi la composé wu mooy sa yére bi nga sol day so day set yaram bi nga sa sa yaram day set sa yére sa yére set place bi nga toog day set woo moom soo ko xamul soo xamul ma wa makaani yi maa mooy li nga xamante ne tumaasuhu dina tolloog aada wu ay cërëm fii yëpp nekkee sobe fi nga taxaw donc su laabee ah fi nga xamante ne moo tolloog sa cër fi nga teg sa loxo ak fi nga teg sa jë ak say oom ak say tànk fekkee foofu dong laab na mën nga fi julli saatu mu fépp laab fi tolloog si cër rek te yi ngay teg fi ngay teg sa say cër say julli ah foofu rek su laabee baax na moo tax mu ne woo moom maa mooy li nga xam ne tumaas wu ne tolloog aadaawu ay cëram ida kaaneem naka zaakeen di aji attan laxaa ñeel ko qaadeen di aji di aji fàttaliku laxaa ñeel ko qaadeen di aji am kattan ala idaalatiha si dañalam bil maa i si ndox al mutlaq ba ne bu ñu jooyal mooy l'eau potable mooy mooy al maa ul mutah al maa ul ah al maa ul mutlaq ñu naan ko am ñu naan ko al maa ul taahirul mutahhar ndox mu laab di laabale na fa law azalaha su dajaloon sa bëgg bi xëy di su dul maa ul mutlaq wa sallaamu julli lam tasix du yoon sala asalaatu julli ga sobee su taxee séeré wala mu tax sa place bi nga jullee wala fu moo doon nga dina nga dajalee sobee gi si si beneen si beneen ndox mu mbokkul ak ndox mu maa ul mutlaq ñu la wér ne soo si jullee si julli baaxul wa ida saqata nem rot na najaasatun mooy faayil ba parce que najaasatun sobe mu rot al musalli si kaw aji julli woo te fekk moo fi salaat ñu ngi si julli waaw nga ñëw julli ba saako sa bay rot sa kaw mu tal yàqu la salaatu julleem wa kadaalika noonu ida zakara nem fàttaliku na sobe woo moom ne o ida zakara nem fàttaliku na sobe woo te fekk moom fi salaat mi ngi si julli wa ida wa kadaalika noonu la mel fii foo foo foo déggee mu ne wa kada wala mu wala mu ne wa kadaalika rek na nga xamante ne moom masala bu jiitu ñëw bokk benn ati wa kadaalika noonu la mel ida zakara nem fàttaliku na woo moom waxu te fekk moom fi salaat mi ngi si julli mu fàttaliku ni annabi soo bi nekk na si yéreem aw badanihi wala nekk na si yaramam aw makaanihi wala nekk na si place place bi jullee nijaasatun sobe ñi ki noonu julleem day yàqu noonu la mel wa kada moo tax li mu wax wa kada moo tax idul batala salaatu ñoo ida kaaneem nekk na almakaanu place bi jullee najisan ayu sobew wa jaala mu lal alay si kaw place la saateen sutura wala si jaara taahiran bu laab kasifan bu fat bi musallasatin si ñetti tomb ay lima si na mu saxinan mooy bu tal bu fat jaazat dagan asalaatu julli alay si place ba mutlaxan moo xam waaw mutlaxan di lu ñu joyel fekkee da ngaa ñëw fekk place bi sobe am sobe ah nga jël si jaara bu fat lal si kaw sobe si julli si si julli baax ali lima si nam li ma namm si mutlaxan lil maridi mooy lil maridi mooy ku feebar saxe ak wér yëpp ku feebar su ko defee ak wér yëpp ñooyam ko ci def si julli baax xalaa maa si li nga xamante ne rajax wu lëngal na ko ibnu yunus ibnu yunus maa wax loolu kon doy
dawal ba fii rek. waaw dawal ba tàmbali.
mu ne yoo faa des na jéggale faslun mu lay wax nag dina ñi nga xamante ne su la tax tey des na ko des na ko jéggal yoo faa des na jéggale an yasiri dami walis dina ju néew mu taxan moo xam moo xam dina ju moo doon bu fekkee dafa néew su la taxee jéggal na la ko mën nga mën nga si julli ali li ma si namm soit un way yemoo la dina ji nag su waxee an yasiri dami mu taxan mooy dina ju moo doon kaana moo xam nekk na dama xaydin di dina ci mbërëk aw nifaasin wala dila ci wasin aw maytatin wala dila ci mbedd goo xamante ne la axu gis na ko fi salaati si biir jullem aw xaari ga wala si biir julli ga waaw moo xam si biir julli nga gis wala ba nga jullee pare nga ko gis ñu gisa di moo xam si yaramam la ko gis aw xëy yi wala fu dul yaramam wala mu gis ko si place mi jullee wala mu gis ko fenn fu moo doon waaye si xayxi li ki noonu tamit dëtt dëtt bu néew ak sarid ak dëtt wàññeeku tamit bu fekkee dafa néew su la taqee jéggal nañ la ko wala yesi lu néew nag mu la koy wax lan mooy lu néew su la waxee lu néew rek te xamoo lu néew mu ne wala yesi lu néew maa dina diir xam mooy lu yées dërëm lu yées dërëm loolu mooy lu néew wala mu waadu la ma namm nag bi diir xam si dërëm albaax lii mooy dërëmu ko ju baax la ko ju berkel ay li machine amoo ba tey ba tey leeragul ak daairatu mooy wërngël allati bi nga xamante kon dafay nekk bi baatin viraa si biir xasab mel bari tukke ci berkel berkel fi yëkkatee xasab ga am na benn daayiru fa nekk bu ndaw bu ñuul mais genre dërëm fa nekk mu ne fekkee li la tax day ñoom la toll ah jéggal nañ la ko waan atari dumale ak jeexitu taab taab jeexit gi loolu di génn ci jeexit gi jéggal na la ko ida lam yun ko nem nem wokkee su ko fekkee wokkoo ko moo génnil boppam jéggal na la ko ay li ma ci namoon lam yox sana mooy nalee su ko bësoo ko moo génnil boppam waxam demil baraaxis ak derecu fel ak mat jéggale nañ ko waxti dil mati ak banu taw banu taw fekkee dafa jax ak sobe nga romb ci mu taqal la jéggal nañ la ko leen kaan doonte nekk ne àla adatu sa fii di si nekk doonte sobe sobe sobe dafa nekk si ban nga jéggal nañ la ko illaa an takun la fa nekk an nayaasatu sobeka xaalibatan di aju nag loolu nag sobe gi dafa nag moo ëpp ban gi boobaa boobaa sobe lay doon aw yokkun wala mu nekk aynun di jëmm qaaimatun di aju taxaw laxaa ñel ko wala mu nekk jëmm jëmm bu ne sëgg taxaw loolu su la taqee soo ko moytul ba mu taqa la sobe la waaw faraadul wudu yi faratay njàpp sabaatun juróom-ñaar la al ula ba si njëkk an niyatu mooy yéene waxuye moom al qasdu mooy jublu bil qalbi sa xol waaw fayin yi mu yéene bi qalbi yi si xolam kañ la yéene mu ne inda rasi waji yi si jamono ju muy raxas xaru kanam li muy yéene fadal wudu yi faratay njàpp aw rafxal xares yi wala mu yéene yëkkati toj ay sibaaxatama wala mu sàkkoo danga la nga xamante ne kaane nekkoon na alxarasu toj ga maa ne ànd aji tere bi mu si moom ñetti façon yéene yi moo am da ngay yéene wala nga jàpp wala nga yéene ñu toj wala nga yéene sàkko danga li nga xam ne ñetti façon yéene yooyu moo am mais benn nga yéene xalatay njàpp wala nga yéene yéene toj wala nga yéene sàkko danga li nga xamante ne yàlla tere woon na ko ndax soo amul njàpp yu bëri yàlla dala koy tere mënoo lal alquran mënoo jàng yu bëri mënoo wër kaaba gi te yëpp mënoo ko tey nag ngay jàpp di sa yéene ci dagana li nga xam te yàlla tere woon na la asaniyatu ñaareel ponk ba ñaareel farata ba raxas jamiil wajhi mooy raxas mbooleem xaru kanam ga waxadduhu day dal ka tuulan ci guddaay min manaabiti shaar ñu bàyyi ko ci cax-caxu karaw bopp almuctaadi bari bu nu baaxoo li tax moo almuctaadi mooy am ñoo xam ne dañoo leel seen karaw fii la commencé boobaa ñooñu suñuy raxas duñ duñ commencé seen karaw baaxu fii seen karaw saxee déedéet fii leen ñëw day ñëw fi ñu si jotee fii commencé foofu moo tax mu ne almuctaadi bari bu nu baaxoo fi karaw baaxoo sax mooy fii fekkee da ngaa leen sa karaw saxee fii sooy jàpp doo ko- doo doo commencé fii di jaxasal kanam déedéet fii ngay commencé ila axiri zaq ne ba si mujjantalu zaq na ga waaye mujjant ba si suufu sikkin ga waa adan si yaatuwaay fekkee si yaatuwaay la maa bañu udunayni mooy nekk si diggante ñaari nopp yi mooy tatafaq way tafaq dina nemmeeku mu ne way tatafaq dina way tafaqadu dina nemmeeku fii xasi si raxasam ay fii xasil wajhi si dina nemmeeku asaayira jëbati rasas rasawu sas ras rasal jëwam ay raxasa jë mais da nga nemmeeku waale ras ras si boom ko bu baax yooyu moom ak takaamish mooy ñagas ñagas allati yi nga xamante ne takun dafay nekk fil jëbati si jë su màggat yi lay lay faral di am wa zahira shafataini ak bitu ñaari tuñ yi danga ko raxas bomb ko fii xarayin ak yi nekk ci diggante ñaari naan waay ay fii way ju naa war nag taxlilu shaari li xeeti xalil karaw sikkim alxafifati ba di woyof sikkim bi fekkee dafa oyof yaraax ba soo xoolee sikkim gis di gis deru sikkim bi ah mooy dafa war nga xalil ko waxa suma ak raxas li nga xamante ne taala guddi mel li xeeti sikkin alkasifat ba ba alkasifat bi ay fat fekkee sikkin doo fatte nag sëq booba doo ko xalil da ngay massage ko rek da koy raxas nii rek asaalis ñetti asaalisatu ñetteel farata ba nga su yooyu li mooy raxas ñaari loxo yi maxal mi fexee ni ak ñaari conc yi fexee nag maxal mi fexee ni mooy da koy raxas ba mu dugg da koy raxas ba mu dugg moo tax mu ne nga su yooyu li maxal mi fexee ni way ji dina war taxlil asaabi ma xam ni seen baaraam ñoom ñaar mooy baaraam ñaar loxo yi arrabiatu ñeenteel ba masu jami la si mooy masa mboolem bopp ba wa awaluhu njalben bi min mabda'i waji mi ngi bàyyi ko si wa awaluhu njalben bi min mabda'i waji mi ngi bàyyi ko si commencement bopp commencement xalu kanam waaw noonu bopp sa garaas fi ngay commencé fi sa kanam commencé fii ngay commencé wa axiruhu day targa waaye xam nga mujj mujj ga mun taxal jum juma mooy daytalu kaamu bopp fi sa bopp yam mooy fii foofu la bopp yam mana man tawat baa ko jàpp na su ma xallam topp mu leeli avafirahu ay weewam ay weewam aw xalaq wala mu bat rasahu boppam fa innahu na ko moom laa yuciru du baamu xasla mawdi at taqlimu raxas borobu leeli ga wala masxaara si du jaage masa bopp ba soo jàpp nga pare wasa bopp wala nga leeli sewee ah bërëb bërëb leeli ga doo ko doo ko raxasaat niki noonu ah niki noonu bopp bi tamit doo ko masaawaat wax waxtu bi fa wuute fi na nag ilaa xalaqa ndam war na lexeetahu sikkinam baada la wudu yi ginnaaw njàpp fa qiila am na ñeen si borom xam-xam yu ciidu day baamoo xasama wa diyaa raxal bërëb ba mu ñu ne day raxasaat sikkin bi ba qiila am ñu ne laa yooyu di ko baamu alxaamisatu juróomeel ba xasu rijlayni mooy raxas ñaari tànk yi maal kaabayni ànd ak ñaari doojeel mooy da koy raxas ba si doojeel ya waxuma ñoom ñaar alazmaani ñaari yax lan an naa it an naati aan yi di way yëkkatiku fii tarafi saaqayn bi si petu ñaari yeel yi mooy yax bii yaxu doojeel wanu diba sabata taxrir asaabiu naa xalli seen baaraam ñoom ñaar dañ ko sopp nag asaadisatu juróom benneel baat dal ko mooy raggu waxoo moom daggu dal ko soo ko xamul imlaalul yëdi mooy rombal loxo alal udwi si kaw cëdi maal may ànd ak ndox mi mooy da ngay sotti ndox mi di bomb waaw walaay seetu sàtt walaay seetu sàttee fu si nag muqaaratu muqaaratuhu lënkaleem li sat bi ñeel sotti gi kenn sàtt si nag ah bomb gi ak sotti gi ñuy lënkaloo déedéet da nga ragge rek ba lépp ba ñagas-ñagas yeeg yëpp daal di koy asaabiatu juróom ñaareel bi almuwalaat mooy méngale méngale nag soo ko xamul woowu mu ay yafaal wudu mooy mu def njàppale kullahu lépp fii fawrin waaxidin si benn gaaw min gayri tafriqin surul taqale mu tafaaxishin bu ñaaw maa zikri ànd ak fàttalikool xudatu ak kàttan ba nga feex ba def njàppale lépp si benn benn jotaay bañ a di taqale nja jàpp si ak taxawee boo xam neex na ñëwaat def loolu dama bëgg nga def njàpp si benn gaaw fii fawrin waaxid waaye na safara tey wasunuhu su nay samaaniyati juróom-ñett la al ula ba si njëkk xas wi réy ni mooy raxasi ñaari xaba idxaalihima lu njëkk nga leen tàbbil ñoom ñaar fil inaay si biir ndab la si biir ndabal njàpp la ndab li ngay jàppee lu njëkk si dugal sa sa ñaar loxo nga raxas sa loxo pare waaw loolu sunna la waaye lii mu ñëwee nag bi xas yi naa seen raxas ñoom ñaar sa ñaar loxo yi soo koy raxas nag si yéene at taabudu jaamu yàlla foofu sooy commencé jàpp sooy commencé raxas sa loxo taabudu nga yéene jaamu yàlla soo dee ba sa xar kanam bi nag foofu nga yéene faata gi mën a wayax si lu mu raxas ku la waaxidatin bépp benn ala xidatiha si day talam salaasa ñetti yoon bépp benn mu raxas ko si day talam mooy ñetti yoon gëlax ndiku ñetti yoon salax ndiku ñetti yoon ba mu jeex asaani si ñaareel farata ba ñaareel sunna ba almadmaatu may galax ndiku wa yow mu soo ko xamul idoxaalul maa yi mooy dugal ndox fii famille si biir gémmiñ su ma yu xat xeebubu topp mu guj gujal ko wa yamu juhu mu yàbbi ko moom ma daal soo ko xamul mooy nga taq ndox dugal si gémmiñ guj gujal ko ba salte yëpp génn daal koy yàbbi asaalisatu ñetteel ba al istichaaqu mooy sarax ndiku woo moom jëzul maa yi mooy jor di ndox bi nafsihi si nooyem li daaxil mooy sarax ni ko arrabiatu ñeenteel al istinfaaru mooy fiiru woo moom daful maa yi mooy jën ndox mi mel an fi mu bàyyi ko si bakkan bi bi naf bi nafsihi si nooyem mooy nga jël ndox mi mu génn sa bakkan noonu ak sa sa loolu nag su nooy nga koy defee maa jaxli sa baabati ànd ak def baaraam sànnikaay bi ba lii bi xaay mi ak baaraam dee bi mi ngi di luy saa bu baaraam dee bi mi ngi di luy saa si loxo càmmoñam mu de- mu def ko mu teg ko ala an fii si ko bakkanam
loolu tam ñu fi kii wax ah mooy baala ko dina jotale mooy baala ko dina jotale xayru saayim ku dul aji woor dina jotale fil madmaat si galax ndiku wala si saam ak sarax ndiku képp ku woor dama bëgg say galax ndiku galax ndiku bu baax say sarax ndiku ak sarax ndiku bu baax fekkee da ngaa woor nag dama nga def ndànk bañ waa ndax ma di di jàll wal afdal li gën nag ay tamatmada mooy mu galax nag bi salaasi xarafaati si ñetti tànqin am na nga xam ne benn tànqin rek soo ñu galax ndiku ay li gën nag baax na mais li gën mën na nga def ko si tànqinam galax bi yaab bi tànqal galax bi su ma yeesoon si ko tam message nag bi faral ak arafat si ci tànqin am na xam ne ni ko yoon sarax ni ko dañ jooy ni waaw alxaalis di juróomeel ba masul usnay ma masa ñaar nopp ya zahiri ñaar seen biti ñoom ñaar baat yi ñaar seen biir daal yi xëy na ba mu tàbbil sababate si ñaar baaraam sànni kaaya fii si raaxee ngi si ñaar bën bën ya ñaar baaraam la jël dugal si si ñaar bën bën nopp yi benn dugal ko fi benn dugal ko fi boo jaxal mu def ibahaama yi ñaar baaraam di ala zahiri ñaar seen ginnaaw nii lay def الثالث الجبن بن البه تجديد الماء موي سندخ بلي مسح اوني ني غير مسا نيا نبي واو سو مسا سو بار دون دغ ما يسا ندخ بي تورا سلخو دون مسا سو نيا بس نب am na ñu ne nag bu fekkee loolu nag sunna la am na nag bu fekkee sa loxo dafa tooy tooy da ngay sa sa nag waaye li gën daa mooy nag nga yow sa loxo asaabaatu juróom ñaareel ba rek lii léegi mooy jëloo ñaari loxo yi fii ma see ba si si ma saa bopp dal gi mooy faatu waaye jëloog si sunna la asaami si juróom ñetteel ba cet ci bu faraa bi lii mooy tax sa faatu taraka ku bàyyi na fardan farata min faraidil wudu si farata yi njàpp fa innahu nakom ya ci lay dikk bi ci farata ba suma yuidu salaatu topp baa ngi julli ga waaw soo njàpp bàyyi benn farata kon wala nga jàpp bàyyi sa kanam laxasoo ko wala nga bàyyi sa loxo laxasoo ko da nga jàppee pare nga fàttaliku ko da ngay dem raxas sër boobu farata bi dog ñu raxas après nga baa ngi julli wa man taraka ko bàyyi na sunnatan sunna fa innahu na koom laa yuciidu baamu asraati julli ga waaye faaw dina def tilka sunna boobu la sunna li maa ñeel julli li maa ñeel li nga xamante ni sox ba dina jublu sunna salawaat si ay julli sunna soo ko bàyyee ah da ngay def sunna gi ah mais doo bàyyi julli gi da nga koy def ngir jublu julli jublu si waaw fa bàyyi li nga doon jàpp nag ihda achara fukk la ak benn alawala ba suñu dëkk ak tasmiyatu mooy wax bismillah si tida il wudu si si jàll benn njàpp la waaw yaqulu ma wax bismillah waaye daal na si yeexaa su ko fàttee fi ibtidaa yi si commencement ga su ma tadakkaraa topp mu fàttaliku ko fii asnaa yi si digg njàpp la fekkoon ba ngay commencé njàpp da nga fàtte bisimilah nga dem ba si digg njàpp la nga fàttaliku ne ba ngay commencé ko bisimilah mooy attaane dikk bi yaay si waay si bisimilah. asaanatu ñaareel ba addu'a mooy ñaan baalal faraag ginnaaw noppi minu si njàpp la waaye yaqul ba mu wax wa huwa moom wa huwa te fekk moom raafi'un ay yëkkati wa tarfahu petam ila samaa jëm si asamaan mu ne ashhadu an laa ilaaha illallah maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu jaam bu dul yàlla wahdahu moom dong laa sharika lahu benn xeet bu kaay la di ko ñeel wa ashhadu maa ngi seede ne anna muhammad abduhu jaam la wa rasuluhu te ndawam la allahumma yàlla ij'alni yàlla nga ma def mina tawaabiina si way tuub ñi waj'alni yàlla nga ma def mina mutahhiriina si way laab asaalisatu ñetteelam an laa yatakallam moom mooy bañ a wax fi wudu yi si njàppam si njàpp la arrabiatu ñeenteel ba xillatul maay muy néewal ndox mi ndox mi bilaa xaddi si loolu day tar si loolu dayoo waaw kal xusi ni ki càngaay maa xikaay mi ànd ak xeer jegeem bi kasil ham si kasal hamza gi ay li ma nam si si ixkaam itqaaniha mooy itqaanihima mooy mu xeer njegle ñoom sooy sang ak sooy jàpp yëpp te fekk ba tànk ndox ma yem xeer njegee ko ba rax si cër yëpp alxaamisatu juróom benneel bi asiwaaku mooy socc bi uudin si bant ratibin bu tooy aw yaabisin wala bu wow waaye nag wal axdaru bu la tax mooy bu nekk si diggante tooy ak wow afdal moo gën li rëy saay bi ngir ko wóolu waaye fekk danga war na nga bu wow moo gën fay la njit neem amul uutan bant fa na soccoo bi usbuihi si baaraamam usbuci dagan na asbuci dagan na isbuci dagan na ñett yëpp dagan aw bi shay'in wala si dara xasinin lu ñagas wala mu um lu ñagas soccoo ko mu ne way saak bi nga socc nag bu ñu naa si loxo ndeyjooram sooy socc socc gi sa loxo ndeyjoor nga koy téye boo ko téye sa loxo càmmoñ waaye ku ne nekk ñu socc ki xabee wudu lu njëkk lu njëkk muy jàpp balaa ngaa jàpp ngay socc waaye tam dama du dina galax di ko baadahu ginnaaw soo soo coppee tam da ngay galax di ko mu ne way daa ba ore dem sowi na maa bay na wudu yi nekk si diggante njàpp la wa salaat ak julli ga diggante bi nga soccee ba jàpp ba pare fekkee diggante njàppale ak julli gi dafa yàgg mën a sopp na soom isaak mu socc waat mën a weyna xadara nem teew na salaatam julli uxra beneen waxoo te fekk moom ala taharat mi si lapp fekkee danga danga jàppal tisbaar taksaan ñëwaat ba lay ba tey yaa ngi yaa ngi yaa ngi njàpp kon ba sopp na ne sopp nan na soccaat mu ne isaaka na socc waat li saa ñetti ñaar yoon ñaareel asaadisatu juróom benneel ba an yatawadda an yatawadda amooy mu jàpp fii makaanin taahiri mu jàppoo fii makaanin taahiri ci place bu lab asaabaxatu juróom ñaar ba yakun mooy mu nekk al inaan ndab la muy jàppoo mu nekk an yamini ci côté ndeyjooram in kaane nekk na maftuuxan li ñu ubbi asaaminatu juróom ñu teel ba ci ngeneel yi ay yuqadlee mooy mu jiital xasal mayaat ñi raxas ndeyjoor yi alal ma alal mayaas yi teg si càmmoñ yi attaasiatu juróom-ñeenteel ay yabda mooy mu commencé bi muqaddami la si si commencement bopp si njëlbeenu bopp al aashiratu fukkeel ba ay yootiyoo mooy mu toftal al masnuna yu sunnaale ma al masnuna ana yu sunnaale kal madmata ni ki galax ndiku wala istinshaaw ak sarax ndiku al xaadiyata ashara fukk ak benneel ba ay yu kabira mooy mu baamu al maqsuud yu ñuy raxas yi nga xamante ne dañ koy raxas si njàpp mu baamu ka salaasa ñetti yoon loxo dañ koy raxas raxas bu ñett kanam ñett tànk ñett waaw bi xilaafi moom sax wuute naa yi ñuy masa yi ñuy masa damay bopp ak ñaari nopp boo mu ar sumay bopp wala usnan ak ñaari nopp yi fay ni na kon la istahabu soppeeful takraaru masax yi baamu masaaga ba tam bii li ak yeetala ak ziyaarate dolli nag ala falaatati si ñett ah gayru mashruatin nekkul lu ñu yoonal waaw ziyaadatu doll ala salaasa si ñett gayru mashruatin nekkul lu ñu yoonal waaw nekkul loo xamante ne soo ko defee rek njàpp yi du baax sa kanam sooy raxas sooy raxasal kanam soo raxasee ñaar rek su tooyee baax na soo raxasee benn su tooyee baax na waaye nekkul lim boo xamante ne soo soo indi ñett rek njàpp bi du baax déedéet moo tax mu ne raw dina saat yi mu ne waxtu yi foofu wuteef na si hal tu ko ndax ndax si def na ko am tum nax wala tees na ko loolu xawlaani am na ñaari wax mashhuuraan yu siw wala saxabu déegul sob itaalatul xurrati guddal weex weex loolu yow soo ko xamul soo xamul itaalatul xurra ak ziyaaratu mooy dolli ala maa si li nga xamante ne wajoo war na xasuhu wala xasam mel wajihi wala réew bi maal mi raqeet ak nag ñaari conc mooy saa xaru kanam xaru kanam daal fi mu yem guddaay gi ah ñu tàmbalee fii fii karaw baax fii karaw baaxoo sax ba suuf si kii yaatuwaay mi ngi nekk si diggante ñaar nopp yi loolu nag raxas ba fii wala nga raxas ba fii dana itaatu wala wala nga raxas ba si baat bi dañuy wax itaatu wala fekkee si loxo nga raxas ba jëmu cooci ñëw ba fii ndax itaatu wala loolu la ñu ah kenn sopp ko dégg nga wala masxu raqabatul jaagel masa masa baat li ki noonu tamit sooy jàpp sa baat waroo ko masa am ñoo xam dañuy masa seen bopp masa ñëw ba fii fii rek nga yem si kaw bopp bi rek nga yem wala ba sa ay nag bi masil aadaay si masa cëri bi min diir ak sarbet sa cëri jàpp yi cëri yi soo jàpp soo neexee nga jël sarbet tooy comme tooy si masa si cëri loolu day nekk si mu ne at isin jaawu tàncu mooy laabu naka la ñuy laaboo waajibul aji war la wóobul xasu mawdil xadas mooy raxas bërëbu toj toj bi nga raxasee ko bil maay ci ndox loolu mooy tàncu tubaab yi nag ñoom duñ tàncu ñoom dañuy dañuy fomp dañuy dañuy ñetti ci dañuy dawandiku dañuy dañuy dawandiku waaye sañ jaay def na tàncoo nag min kulima def na tàncu min kulli maa si lépp loo xamante ne yax ju génn na mel maxrajo yi ni bàyyi koo si ñaari génn waaye lépp lu génn bàyyi koo si kanam wala mu génn bàyyi koo si ginnaaw dañ koy raxas dañ koy tànc dañ koy dañ koy raxas ba mu set mu'taadan mbir mi lu ñu baaxoo waaw lépp loo xam ne baaxoo la da baaxoo na génn si kanam wala si ginnaaw su génnee dañ daa war a raxas ba mu set waaw su waree xelam des ngelawal ndax yéen itam nee na من استنجى من ريح فليس منا képp ku yàgg si lise ak ak set ba ngelawal laaw li nga bokk si ñun waswatuhu melo gi nag nii laaboo nii tàncoo ay njëb da mooy mu commencé bi raxas yëri si raxas loxoom aliou saa bari càmmoñ da nga njëkk a raxas loxo càmmoñ ba mu tooy xepp ba nga xamante ne xar-xar yi nekk sa sa sa sa loxo bi yëpp day fat ma nga xam ne soo laaboo du xeeñ loolu lañ sa bëgg moo tax bala ngaa laab da ngay raxas sa loxo day xet ma nga xamante ne bën bën yëpp dina fat nga doog a laabu moo tax mu ne an yebba mooy mu commencé bi xas yëri yi saa si laxas si laxas loxo càmmoñam xam la mu laa xaatiha lu njëkk muy dajegal ada sobe si su ma bi xas si maxallil bawli soo defee loo pare nga loo si teg nga raxas boobu sawwaay bi soo paree nga raxas sa zakara pare su ma intaqil toog mu doxalu ilaa maxalil la jëm si bërëb jëmukaay joor bi te wasa ginnaaw mu ne waaye soo bëgg dina sotti almaa ndox ma ala yadihi si si si kaw loxoom xaasilan bi ñu aji raxas raxas bi haa si moom almaxal la bërëb ba waaye sarxi mu fellu xaylan lu néew waaye jiitu mu beesal alaat ka bomb ga xataa yuñ fee ba mu si almaxal la bërëb ba su ma yàq si lu toog mu raxas yadahu loxoom baale dalika ginnaaw loolu soo laaw pare na nga raxas sa loxo bi turaabi si suuf wa nax yi ak yu ndoog suuf comme saabu soo ko amee wala amoo wala si braawu laab la nag waajibun aji war la woo moom istifraagu ma mooy sàkkoo féexal li nga xamante ne fi maxa jani nekk na si ñaari génn waaye min al ada si sobe wa sibatu meloom nag min al bawl si saw bu fekkee si saw li ñuy wax istibraa si saw mooy soo sowee pare noo bëgg nga toog lu yàgg ba lépp ba ba soo sawee toog dara génnul nga jug taxaw ab diir toogaat bu dara génnul ah nga jël sa sa sa baaraam déy ak sa baaraam sànnikaay ah rat rat sa safara bi ba lépp génn mu ne moo tax mu ne wasiyatuhu meloo gi neel bawul si saw ay jaal mooy mu def zakarahu zakaraam bay na us ba ay si diggante ñaari baaraam la diggante ñaari baaraam la ak sa baaba ci baaraam sànnikaay bi wa ibham ak baaraam déy bi fa yumiruhuma mu rombal leen ñoom ñaan ak ñu ngi bàyyi ko si si min min min aslihi bàyyi ko si cosaan la ilaa bu suuf ba si kemb la ba si suuf ya wayanturuhu mu ratt mu mu moom dakara ga mu yefaal ñu def dalika li salaas maraat ñetti yoon di xifatin si weefal fi salti si ratt wan natli ak moom dakara ga mu wane daf koy def ñetti yoon waaye mu ngi ko def nànk moo tax boobu asmaay ne wa shadd wa daa shadd mu ne way jib daa war a rasul naka tax zakar kulli yi lépp di xoo jib ma li ñëw génn ma si ma ñu soo génnee sa zakar yëpp nga raxas wa xëy way jib ñu ñëw ci ak yu nekk la soo bi yéene gi nag si raxas si raxas nga xaw laa ñu ñaari wax ba xam soo ko raxas da nga yéene wala ba xam doo yéene ñaari wax am na si ñu ne da nga yéene ak ñu doo yéene jangan diapain begini faj aja adab qadail haj nakal ni tegini samun tegini kesidus atau sedus sedus من أربعة عشر أدب في كل في كل مية تجلى الأول بس يجيك بس جيت ذكر الله وتبي على عندك إرادة دخل سلاس من بدب دبر الجنة ما يدب si si dawukaayu àll ba demal bi nga namee dugg foofu dama nga jóg ngay tudd yàlla xam nga yow si lu njëkk ngay àgg ilaa moom tedd aja si loolu sooba sooba yi ak si bunt bi rek ñu nga wax ñaan bi tudd yàlla sa yaqul mu wax bismillahi allahumma yàlla inni naka man aawudu bika maa ngi musu si yow min al xubul cheytaan yi boobu wal xabaayis ak cheytaan yi jóge nii ويقول نحن بعض الخروج مما قل منه شيء ونبوى من غفرانك من تنجل الحمد لله بلن خارج انت لا نمنا الذي بالبيع خمنتنا أذاب دمنا عمل سرا الأذى صلى وعفا دمنا ولا جزيد وانا بدخول خلايا الدبوكين بشيء أن الدلال وخمتني فيه النكيد الله تعالى tu yàlla bu kawe bi du soofa dugg woo yor sa loxo wala sa poos wala fu mu doon si yow loo xamante ni tu yàlla da see nekk kal xaatim li ki jaaw li ki jaaw yi nga xam ne si dugg laa wax laa xam nga suba wala ko fa wala ko dugal wala di doon ak di doon comme di doon nàkk yi nga xam ne dañ ne si buntu yàlla wala ko dugg wala yu da yu dagan ak si jaaw tànkoo bi seen si dara loo xamante ni si lu nekk ni fi laay taala loo xamante ni ci yàlla dafay nekk ci moom la ko tàncu afaani ñaareel an yuqaddam lu jiital dañu la ko lii saa tànk càmmoñ fi di xool si dugub ba sooy dugg si douche la nag mooy na nga njëkk a dugal sa sa tànk càmmoñ wala naa ndaw joo ko na nga ko njëkk a dugal fi lu xool ji si génn soo génne nga na nga njëkk a génn na nga jiital ak ko ndaw joo ko الثالث يجب أن يقضي المفد حاجته أجب وتشكل جائز أجل لكن سوف تعجب من الطوق من التحو سيساو الطوق سيدب على الطوق الرابع ينتبه أن يدير مسخل السترة ساترا ولا تبين مسخل حتى يبني ومجيك من العبد السوسي bëgg nga ñëw ak si néegu doo ko toog doo bëgg nga toog ba ba waaj àgg suuf doo ko suuf sa tubéy alxaamis juróomeel ba ay yaatu li dama mu sukkandiku ala rijli di saa si tànk càmmoñam nit noonu mu sukkandiku sa tànk càmmoñ waaw baax si lay gën a jàppale ak saalis juróom benn ila rabi achar ba fukk ñeenteel ba ay yu rabi jamono mu yëwale ba nga fexe ba diggante ñaari léppam waaye an yajtaniba te mu teg al mawdaa suul ba bërëb yu wow yu kekkay wal ma ak daayim ak ndox ndox mu dal ndox mu daw bëgg nga def fa àll comme na ko jeex nga xamante ne daw doo tax dem place wala na ko jéem bëgg ko fa dem àll nekk noonu ba dëgër bu kekke bay mu ko al ndax soo ko sawee soo ko demee wanag mën na seet sa kaw mën na yël li nga koy tey waaye yoo xatti te mu muur sama boppam ni ko noonu dama bëgg sooy def al mu sa bopp waaw loolu nag bu njëkk la woon ndax bu njëkk am ñu si àll bi mbaa nekk mbaa doon yoo xam wa an laa yatakallam te mu bañ a wax nag illaa li mu ndeeg la lu yittewoo soo nekkee si wanag tamit bëgg na ndax soo duggee si douche malaaka yi nga xam ne ñoo la siré soo duggee si douche danañ tax lu dëgg la xaar soo waxee nga dinañ yaakaar pare na pare na te ñun bëggul gis aw rek waaw ka xaw yi fa yaati masin ni ki ragal faat bakkan loolu doo mën aw maa ngi wala alal waaye taxi tamu teet ak yi xam ngelaw fi ngelaw di jóge muy féete ko wal jox la ak pax ba bu buy dem ak si pax wal malaa indi salaasa ak ñetti place rëbbukaay yooyu moom moo tax a jóge si bërëb yi tawukaay nit ñi bërëb tawukaay nit ñi fi nit ñi di toog di seen grand place ba jóge fa dem àll soo demee àll ku fa ñëw la ñaan la dem ci def li yàlla ko war a nangam moo tax wasu xaatim ak seen mbir mi mbir ko soo demee àll ku xorom na def li yow ku xorom na ki def li yow ban waay ñaan la ñaan loolu tax a waaye sa te tamit suturu ànd ay mu naas wala si bëri bëri nit ñi soo dem altam na nga dem fa sori foo xamante ne kenn nekk wax nga wala tamit sori ànd saa ne ay wala si dëgg yi na nekk foo xamante ne lu fa def kii lu mu def lu lu bugam daw daw kenn du dégg li muy def waaw daa ne nekk na fi fa bàyyi si àll wa allah saqil mu doon jubbe ak qibla nekk noonu bëgg na nga jubbe qibla wala sal bi daxaa te bu mu ko dëpp إذا كان النكر نفذ فلا يسأل يجبر كي يحمل بشأن الرسال ولم يكن تنكر في شأن ساعة بساعة من فإن كان النكر في شأن ساعة بساعة فكان يلك النور وفي منعه نكر ستر مجيب لقبلة ولا من قد قبلة أو لا من نار وخ المختار بمتعب من منهما سنمنا المنع من الجرم وأما فعله لا يجب أن كل منزل سكري فيجي زيادة المطلقا نوخم ani li ma namu si mutlaqan soit un lay yem wala kaan ma xam nekk na fi naaka foofu saati min saati am naa wala déedéet kaa nekk na fi naaka foofu mashaqatun coono am naa wala déedéet